jërë ngeen jëf campagne électorale bi tàmbalee jaaxle yéen a kaay yi di jeqi ubbi l'observateur fukki candidat ak juróom-ñeent yi soobu ci géew bi la topp seen bés bu njëkk ci campagne bi ku ci nekk ci ñoom wax ñu fa nga newoon ak la nga fa newoon mi ngi ñuy wax ne ñoom candidat yi siiwal nañu seeni programme mu di ay programme yu neex lool ci dégg-dégg digge yu rëy yéene yu rafet waaye bi fi nekk ni amul kenn ci ñoom ku leeral koppar yi muy jëmale ay diggéem fan la koy jëlee lii ko tëjee nañu fukki candidat ak juróom-ñeent tàkk nañu démb ca Parcelles Assainies cib jàppante bu fa amoon ci diggante ñiy jàppal tànk Amadou Ba ak farando yu Bassirou Diomaye Faye kii di Khalifa Ababacar Sall journal bi mi ngi ñuy xamal ne ab karawaanam la dogale ca Dakar Plateau attaqué leen ñoom ñu fayu bi gën a dee nag Les Échos nee nañu ca siège bu APR fa la xewe ay garde corps ak i nerve ki force de défense sécurité yi ñoo fa doon jàppante bés bi le jour nañu démb bu duloon ak gendarmerie kon dóorante yi tàmbalee benn la ñi ànd ak jomaay enquête nee nañu wane nañu démb seen doole ca terrain ak APEX ba ca Parcelles Assainies journal lay fa nañu ngan di maami mobilisation def waaye nag du coalition bu ndaw ndax bari na kàngami politique yu ñu ràññee lool ci géopolitique bi ñu buub seeni kaake dajale seeni kalma fa boog seeni dëbës dem fekki coalition jomaay président Walf Quotidien bind ne Pastef toj na Parcelles Assainies démb candidat beneen amee màgget yi ci géopolitique bi yëpp la yóbbu à la retraite euh, candidat bii di Déthié Fall njiital coalition Déthié président Walf Quotidien nee nañu caaxaanul mi ngi ci kaw gaañ li tax journal bi wax ko nee nañu moo nañu ci programme mu ne bu falo lii di détournement deniers publics dafay jeex ci réew da koy criminaliser Bokk Yaakaar bi di Amadou Ba direct news mi ngi laaj ci xëtamu njëkk est-ce que ñi mu bokkal APR wanuñu ko ginnaaw tribune na ko ahakay moom Amadou Ba ministre dañ ko boycotté ne keroog ba muy tàmbali ab campagne benn ministre de la république kese la gis ci wetam Les Échos mel ne ko koy dëggal ndax bind na ci xëtamu njëkk dëkk na yi ëpp doole dañoo budee Amadou Ba wan ko ginnaaw moo waral ba keroog ba muy présenté ab programme gisuñu benn responsable bu mag ci APR bu fa teewoon responsable nationaux yeeg responsable locaux yi dañoo fase seeni loxo toog di ko seetaan meeting bi ñu amoon yéene organiser ko ca Mbàkke annulé nañu ko comité électoral ba ca Kaffrine tas nañu ko point actu gis ne moom Amadou Ba candidat bu Benno Bokk Yaakaar bi ay ñoñam yi ko ci xët mu njëkk yéenekaay bi bu dee dañoo am beneen candidat bu bokkut ak Amadou Ba nañ ko wax ñu wax ci li journal L'As xëy di waxtaan ak ñun mu di décret bi convoqué corps électoral bi ngir ñu organiser élection présidentielle yi 24 mars 2024 bu Cour suprême annulé décret boobee lan mooy xew tribune nañu bu ñëpp mel ne Bougane Gueye Dany du am ndax moom boroom gëm sa bopp di Bougane Gueye Dany nee na processus électoral bi ñu nekk nii du ñu nangu baa ñuy seetaan lu mu jar rekk jaral na leen ko ñu jaare fa dellu ci l'observateur xooli fa ñaari mbir yu yéeme ubbil journal bi benn bi mooy ay wuyu yu songu minibus Total ligne 37 bi ci VDN 3 bi ba faat sëfër ba ca nekkoon ñaareel ba mooy waa ji ñu naan Paul Sara Faye dafa bëggoon a rey baayam Pape Malick ndax nee na baay ba day doxaan jabari jàmbur jaajëfal ko bu baax a baax moom moom